di nit social Mansour moo ñu fi woo ah wax dëgg yàlla di xale boo xamee ndaanaan la waaye di xale boo xam si ni lu mu dëgg lu ne wax dëgg yàlla da koy jëlaat dugal ko ci néew di doole yi ñu koy ñaana bis bu réussir di ko ñaanal bis bu àgg ci jàmm ak salaam mbokk yi su ma rakk laa àndaloon nag la Diop waaye la Diop damay nuyu sama benn xarit borom c cinquante bu baax DG Abdoulaye borom C50. di nit ku baax. man ku social. la koo xam mënul fekke lu ñaaw ndax social bi muy def ñu ngi koy bu baax a baax a baax muy sa xarit muy sama xarit Abdoulaye ñu ngi lay siyaar di la wax ne gis nañ social yi ngay def gis nañ nu nga jàppee tamit sama doom nday man ku ma jàppal Fall rek ma jàppal la te danga ko jàppam jeex taax na tamit nu ngay dimbalee néew du doole yi foo xam ne lu metti la nga ñëw faj faj ba ñëpp gis ni kontaan ci ñoom ñu ngi lay ñaanal nag di la wax ne yàlla la yàlla defal jàmm Abdoulaye Sylla mais boo ñaanalee Abdoulaye Sylla da ngay ñaanal nag Saliou ak Khadim ñooñoo dañoo nekk si ginnaawam di ko liggéeyal liggéey bu doy waar dañu koy ñaanal jàmm waaye la Diop nee naa la Baye Sall ak sëñ Khadim ku mu nekk sa ginnaaw rek kooku ndam rek nga yam comme ni lay sila bul ak ak sëñ Fallou ak Baye Abdoulaye ak Baye kon jeex na <laughs> Abdoulaye Sila jàmm ci yow saa su ne mais du nuyu sa cameraman Cheikh Cheikh la de kii kenn du mooy mooy mooy bi ne convoqué wu ma ko bii mais bii da koy convoqué non final laa ko convoqué inshallah final laa ko kon naa la bàyyi nga doxal mais tey Fallou Mansour moo ñu fi woo jàmbaar production nga xam ne ay ndaanaan lañ heure bu ñu fi woowee stade bi da am nu muy mel Fallou kon ne xam ne tey jour de liggéey la jour de travail muy jeudi mais xoolal stade bi Fallou. c'est que te yaa ngi ñëw. c'est que la Diop ki woote nit su social la ki woote dafa bëgg làmb moom laay gis moom ak kanji laay gis ñoom ñu ñëw ci làmb di dagg tiggéey te Mansour Mansour na ko àdduna bàyyi xel nit ku baax a ngi noonu. la dimbali làmb Fallou. day dimbali làmb day jàppale làmb. la Diop doxalal. Fallou ngi noonu comme ni ma ko waxee Cheikh maa ngi lay nuyu di la siyaar sama caméraman bi. yàlla sa jàmm yàgg Leral TV la tey ñu ngi fii arène nationale yi nga xam ne mooy Zodi Mansour Ba moo ñu fi woo jàmbaar production indil ñu fi biis bu mag a mag ay xale yu ndaw di fa bëree boole fi ay xale yoo xam ne ay ñu làmb yaakaar lañ tey Modja kenn du la ko présenté ci làmb nga ñëwaat ci assurance ambulance kenn du la ko présenté ci làmb yeneen xale yi bari nañ Talfa dina fi bëree Mbaytin dina fi bëree Tony Junior bu kër mbir ndaw dina fi bar xale yi bari nañ Liss Ndiago dina fi bëree digganteem ak Naar Sokaas loolu neex la xale yi bëri nañ seex toppam ma jël ambiance xool ci mbukaay xool mbër yi nu ñuy doxalee nu ñu préparé xool tous ñu dem ci làmb seex nañ dem daam seen a ngi noonu dajjul ma beneen paket bi nga dajji woon daa jeex mu ngi noonu nekk si ay cumbukaayam cay làmb ma ni seex làmb lu ne la xoolal ma yi biteel da nga koy préparé fu ne dem fu ne nga dem fa yi yi caajaay lay jugee yi jigéen soor fu ne cay làmb waaye xale baa ngi noonu xajam na def na cosaanu séeréel takk na tànk ya comme na ko yigi ni daan defee jël sëru rabal ba oho waa ji nee na ko wuyul téléphone ma ngay wax ak sëriñ ba seex nee na ko lang ma waxoon yëpp def naa ko exe ah nee na ko ma waxoon def naa ko ay yi manqué réglage rek moo des exe daam seen a ngi noonu si cumbukaayam yi ba tey mu ngi noonu seex ñu dem xale yaa ngi noonu ba tey ñu ngi ci làmb ji mbër nuyu naa la mbër nuyu naa la mbër xanaa dañ la tere woon ah dañ laa tere nangu ta wax xam naa pression làmb jee ko jàpp waaye ba tey maa ngi ci biir champion yi topp moom ma jël xoolal ma bi li muy def moo kër soom la dañuy fo làmb lépp naxante la nee na ko bu may jël sa tànk dawal bu ma nee coppet bi dawal ay waay jile moo kët su baagay foo seet tëtëtëtët waaw waaw mbër nuyu naa la. fay naa la ci loo ne. sant yàlla alhamdulilah na la. serpent noir. eh serpent wu ngi nii. merci jàmm champion bi ndaanaan. amiin amiin. serpent namoon nañ la de. waaw maa ngi rew lu bëree bëri sëñ bi. tey loo indi sa adversaire. waaw teg ak tey rek di lamb ji laaj rek ñu def ko incha allahu rabbi ñaan yàlla may ñu ndam rek. lan nga koy yóbbante. du ma ko yóbbante dara du mu taxaw rek. sa diggante kan la. sama digganteeg kii Petit Ba. Eh, Petit Ba mel na. Ah. caaroy bu caaroy sam-sam waaw. am nga lamb de. waaw loolu bëgg man ma bëgg ku may jël ñu ne ma tey mu ray la. kooku Ba. waaw loolu ko indi de. dama koy daan jël jàq lu leer laa la wax. yaa wax loolu yow Serba. waaw ah. léegi damay topp ma génn fii ñu dem fële am xale yuñ xoolaat ci biir Seex jaajëf. Ardo yu noonu. ànd ak El Hadj Diène <laughs> xoolal ma Ardo Ardo yi nii. Fala ma Ardo Ardo ci loone sant nga ni tekk Ardo ngi noonu digganteem ak Liss Ndiago la woon Cheikh ba tey maa ngi ci biir xale yi Cheikh topp ma Liss Ndiago ngi noonu gone ak jàmm gën gi xale gaa ngi noonu di dugg si cumbukaayam Laurent nee na ko boo xasee ba teg doo teggi ñu ngi noonu di xool fan la ñu war a teg seen cumbukaay Cheikh cee làmb tegtal la ñu ngi ànd caadu Jolof ànd doomu jàmm gën Abdou Seck ngi noonu may seen ndeysaan le ambassadeur de jàmm gën waa lii rafet na xale baa noonu sama sëriñ ma cero maa lay siyaar ndeysaanam gone gaa ngi noonu toog si cumbukaayam ndeysaanam mbër nuyu naa la maa lay fay da ngaa ñëw toog de waaw ndax doom Pikine lañ moo tax waaw dama toog dal jaamu di leer làmb ji bis bi laaj waaw rek tey dinañ ko joxe sa diggante kan la sama diggante ak aéroport mel ni. aéroport waaw. fa ngay de. aéroport waa Pikine yëpp laa si yem ñu tukki. ndax da ngay tukki. dem de. aéroport mënuma de. waaw bu soobee yàlla. la. ndeysaan ba tey comme ni ma ko waxee. xale yaa ngi mbëri. jëlee ma fii. doomu nday siyaar mooy équipe bu mag bi la ci laal. doomu jaraaf la doomu Medina la Ibou Afia nuyu na la ndeysaan mu ngi ci bagage yi xale ak Medina baa ngi noonu caatu caatu Colobane caatu Medina nuyu maa lay fay. bébé jël la ci laal de. waaw Ibou Afia waaw. 100 pour cent la wala 200 200 pour cent. 1000 cent la 1000 pour cent. loolu bari na de. day daw rek amul arrêt. jàmmaarloog waa ji teel a ñu làmb di jox cër xam ne Ibou Afia mii daa am cër si làmb ji waaw. mais Ardo lay bëral de. Ardo dara Ardo tapet la bu défendre du daan Ardo musul def kele daan kenn. kan la musul ne faa mu yóbbu ko Ardo. waaw du def dara Ardo kañ la xeewi yow ay dolli ma nekk fekk leneen ak. yaa ngi fay dembale bu sax bi la micro korog bi. Ardo xeewi na yow xam nga li ma lay wax. di nga sa doom na ko jënd ma Ardo yaa war nekk. waaw man dama màcc Ardo waaye. Petit Ba lay ma ngay simmeeku ndeysaan ma ngay simi xaftaan bi digganteem ak ki nga xam ne mooy serpent noir la ndeysaanam Petit Ba mbër nuyu na la. waaw maa ngi lay fay bàyyi laat. fi loo nekk. sant yàlla bu laaj. bis bi waaw comme nu mu daan laaj comme nu mu daan laaj rek. waaw sant yàlla bu wér nag. waaw saako ñaan si waa Tivaouane bu baax a baax a baax. serpent waaw loo def da ngay daan nee na bu xeex jotee mu xeex ak yow bu bëri jotee mu jàngala bëri waaw loolu yàgguñ ci yàlla ma yàlla may ndam daal ndam rek moom may teel yàlla ma yàlla may da ngaa dal lan la bis bi laaj waaw moo tax bis bi la rek dalaayu bis bi la rek bis bi moo laaj loolu hmm, sam-sam dafa soxla ko yoo xam nga li ma baax kon ci kanam dina leer incha allah ñàkk jëriñoo ngi nii doomu caaree la doomu sam-sam ñàkk nuyu na la waaw lat maa ngi leen di fay ci loo nekk waaw ci la ma nekkoon rek wala lu ko raw tey

non lu adversaire laaj rek lu gën a yomb rek liggéey na lépp. Liss nuyu naa la. waaw ñu ngi lay fay la Diop. ci loo nekk. waaw maa ngi si tey da xajam de. waaw sëñ Fallou rek. waaw loolu laaj ko waa. tey ngay bëree koo xam ne moo la jir ci làmb. bëri na fekk ne muy Naar Sogas tey nan nga waajee bis. waaw waaj nañu baax ko lu noonu waajee combat rek di naan yàlla suturaal yu mel ñu nam ko waa. gis nga génn jàmm gën gi yëpp topp la te xam ne tey du dimaas jeudi la mais mbooloo mi la topp Liss. man mbëru dëkk laa man mbëru àdduna laa dañuy sant yàlla dañ naan yàlla suturaal ñu rek. si kanam tuuti dina leen. incha allah. jërëjëf. jëla ma xale bi Laurent Ndiago ngi noonu. Laurent. kaay xale baa ngi noonu doomu jàmm gën bi. Laurent nuyu naa la. tey nga taxaw ak sa grand frère sa lépp muy Abdou Seck. tey balaa ma lay jox micro damay jox Abdou Seck mu nuyoo ba pare Abdou Seck maa ngi lay nuyu di la siyaar. waaw mooy loolu maa ngi lay fay bu baax a la jóg. tey ñu gis ngeen taxaw say rak muy Liss Ndiago indi ko ci làmb ji tey bis bi lan la laaj. waaw mooy loolu rek ñaan yàlla suturaal rek may ndam bu seddu guy mooy loolu. lu mu laaj rek booy mooy loolu xam na lépp na ko def mooy loolu. muy bëre xam ne la bërekat la. bëre woon naag Siteu te boobu yaa indi Siteu Siteu yàlla ko ndam tey muy bëre waat ak koo xam ne sa tuutànk la sa rak la tey lan nga yabee Liss. waaw comme dara. waaw li ñu soxla na dem jëlal ñu ko rek andil ñu ko mooy loolu te incha allah am naa yaakaar ne bu soobee yàlla dinañ am loolu. mais paa bi da ne du joxe lim soxla de. waaw mais moom loolu la si am bu soobee yàlla gëm naa ne loolu rek la si am incha allah mooy loolu. Lora nuyu naa. waaw ginnaaw ñu sant yàlla Diop. bëgg na ne taw feexee. Lora mais da ngaa tiit de. bu ma tiitee rek yàlla leex ma. tiit da ngaa tiit ni ngay waxee man Lora daa waxee man. doomu jàmm a tiit waruma. sa tiitoo lan la. ragalee tooñ sama papa. bu ma tiitee wàccee sama papa. mais ki ngeen di bëreel. nit la. dafa am expérience ci làmb de. mais mënul weesu lu dul nit. na moom. waaw comme jeex na. mais dafa am expérience ci làmb laa la non non expérience ay yooyu amul si làmb. barki yàlla ay yooyu amul si làmb. lan nga yabee Liss Ndiago si combat bi. lan na ko yàlla suturaal rek may ko ndam. mais noo ko yabee nan ngeen waxtaan. pare na Liss xale la. lu mu soxla da kaa war a jël. bilaahi tamit te naar lu ko daanoon génnagul jàmm gën ba tey. naar lu ko daan. lu ko daanoon génnagul jàmm gën. mais am na lam duggaat jàmm gën am lam fa jëlee. diggante ma Baba Jaxal. waaw dafa leer par décision arbitre la daanee Baba Jaxal. mais dañ koy daan dañ kaa daan ba mu tëdd tey day daanuwaat ba mu tëdd si kattanu yàlla. tey ñoo gis ka indiwoon Siteu ba muy daan naar sogaas moo leen dar muy Abdou Seck. moo tax ma naan la lu ko daanoon mooñ topp ba tey. Ah. yàlla nañ yàlla suturaal rek. bisol diis léegi bu dee dixième combat am. tey saanam. Tony a ngi noonu di daw. di dugg si biir géew saanam. arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak lim bañ. arbitre bi soufflé Ba. moom lañ jàkkaarloo Serpent Noir moo ñu woon ginnaaw. saanam. nee eh, nañ koy seetaan fii ci Leral TV nga xam lu mu leeralul baaxul maa ngi nuyu Fallou borom faaxat maa ngi leen di siyaar baax a baax eh Serpa lu bëgg nii arbitre daa sufle rek mu daw songu waaye Petit Ba kor na ko ca kaw ñaari xale yi ndeysaan diggante Petit Ba ak Serpa Noir Petit Ba am na lu mu nar mais Serpa am na ngembu waaye Petit Ba amul ngembu ña nga jàppante loxo ñoom ñaar ca kaw ndeysaan ñaari xale yi dañoo mbapat arbitre dafa sufle rek ñu daw songoo jàppante diggante Petit Ba ak Serpent Noir oho Petit Ba Serpent Noir xale yaayu noonu ña nga jàppante ku ne kor na sa morom ku ne tee sa loxo morom ñaari xale yi am na lu luñ nar dafa mel dañoo bokk bëre nag ña ngay dajale Petit Ba Serpent Noir oho Serpent Noir Parcelles Petit Ba Thiaroye ndeysaanam maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu Fallou Fakkat sama mag ji. xëy eh fàq na moom serpent noir waaye petit ba bañ na de serpent noir petit ba ñaari xale yi diggante petit ba ak serpent noir serpent mu ngi dóor petit ba bañ na am na ngembu lu mu nar ma ngay dajale petit ba nengañ na ko ca kaw rasu génn ci ndeysaan ñaari xale yi. oxo Petit Ba serpent noir ey serpent jël na ko daan na daan na ko daan Ba li nga bëre baaxul serpent daan na ko bàyyiwul kenn di dox ci social di dox lépp loo xamante ni soo ñëwee boo ko disee soxla tey rek incha allah ci kattanu yàlla Ardo xale yi Ibu Afia moo ko fi indi xale Medina Baye fii ana Asikoy doomu Jaraaf yi Karima déggal xale yi xale yi nee na ñoom Medina lañ dëkk xale yi luñ dëkk fuñ dëkk. Medina lañ dëkk. Karima. ñun waa Jaraaf. ñoom. ñun. Medina la ñu dëkk. Fils de champion bi ngay doomu sam-sam tey lan ngay wax ci loolu. waaw loolu fierté la fierté la loolu fierté doomu doomu Caaroy la doomu sam-sam xam nga mun ma wax quoi. tey nan ngay gisee ak say morom nga àndaloon mbëri ngeen dem ngeen jël trophée yu bari yooyu noonu ñaata trophée ngeen jël. luñ jël bëri na bëri say xool lit moo ëppale foofu trophée franchement lit billaay. mais gars yi moom foo ñu foo ñu jàppale jeunesse jàppale mbër yi. waaye loolu ak état bi. état bi ak discipline yi ab demoon yëpp am médaille na leen recevoir Macky. jërëjëf Prince la. oho. Prince Aïda Port. hey. Aïda Port dugg na ci garde bi léegi door na ko tal. Prince Aïda Port. laaw na moom Prince. presse laa waat naa presse song la bëgg bi baaxul garde yi baaxul rinaa na takk na ko luy xew ñaari la presse ak ay takk na ko da koy mbuufaan daan na ko daanu ko arbitre jeex na presse daan na ko xolama mbooloo mi hey ma ngay yegali waaye xolama xale bi indi presse la xale la waaye defee saat bi moom presse oho daan daan nañ ay rapport waaye presse nee na ko damay tukki. lañ jóge arbitre bi suuf la na. arbitre bi suuf la na Ibou Afia. jeex jàmm ko daan. jeex jàmm ko mujjee daan jël bu ñoo ñaar. damante baaraam bàyyante la. Parcelles la waree kii Medina. la ilaha illallah Ibou Afia Ardo. Fallou Ibou Ardo moo ñëwoon ginnaaw. ngemb ngemb lu diis. ngemb ngemb lu diis est ngemb lu mu ngemboo baax na. est-ce que du ko sonal Fallou. mën na koo sonal nag waaye xale yi nu ñu la ñuy ngemboo. ñoo ñoo xam nañ seen i sër. ndax day bëgg adversaire am bañ koo jàpp. loolu la. xam nga ngemb bii mu ngemb adversaire am mënu see jàpp. mais nag naa la xamal leen Ibou Afia ngemb lii am na fu mu mën a jàpp. ndeysaan mais lu ma xam gisee nii Ardo combat am day day yàgg Ardo Mbagnick combat bi dafa yàgg Ardo benn combat la bëre mu gaaw muy moog Liss Ndiago te Liss Ndiago da ko daw sàcc jàpp ko te Liss Ndiago dafa daw sàcc ko dafa mën bëre moo tax mu daw sàcc ko jeexal combat bi waaye Fallou Ibou Afia ndaanaan la bëre kat ndaanaan la tey ñaari xale yi ñoom ñaar ñëpp nañu def ndànk bis bi moo mel noonu faaw ñu tey ñoom ñaar bis bee rëy waaye Fallou maa ngi lay siyaar waaye la job ci loo ne la ilaha illallah saaliw bu see cinquante. waaye sa waay cokkaas na léegi même Ardo. Ardo laal na cokkaas na léegi. ndax day song. boo moytuwul Ardo Ardo day song ay Ardo li muy ma gis nii cong laa la gën a mën. waaye bu affaire mu ngi ni teg fermer garde bi. fermer garde bi fi mu ni mu fermer garde bi bi mu taxawee dafa baax. mais ni ma gisee Ibu affaire mii Ardo dafa mel ni lu bëgg a song Fallou jeexal bërëb bi. waaye nag mënu koo jeexalee ci noonu ndax Ibu affaire mii pareegul. pareegul ah gis na sànni na léegi moom Ibu affaire. waaye mais door boobu mu door noonu baaxul. parce que dànk bi li mu dem dafa bari daa bara siku daa bara siku Fallou parce que mbër baroo sa tànk déedéet te boo xoolee Ardo Ibou Afia segal na ko tànk bi ar bi baa ngi wax ak ñoom war na gauche droite Fallou na benn dalu si ñoom ñaar ñëpp dóorul Ardo xeex bi muy xeex jaar na mais dalul dalul parce que boo eh, eh, xoolee dóor mu daanu dóor mu daanu ndax mu daanu dóor mu daanu eh, Fallou mu jëf daf na karab yi wala def ko. day daw day génn. arbitre day génn bu ko bàyyi. boo ko bàyyee mu génn. waaw ndax Iba mu génn. ndax daan na ko Iba Afia daan na ko. jëli bi na wala daan na ko. jëli bi doy na mbooloo mi. xoolal mbooloo mi Seex xoolal mbooloo Seex. Seex jëlal Seex jëlal ma Seex jëlal loolu. doomu Medina bi man bëre daan na oh!

lu lañ mën a dalal soo dalee yaa ko mën. wallaahi mais dañoo gis nga jox ko cër. te moom combat am day faral di yàgg mais ñëw jeexal combat bi. parce que ba ma judd ci làmb ma jox ko cër jox ko lu moom pour mën a am li ma bëgg. maa ngi sant yàlla bu baax. sant yàlla daan Ardo muy champion di bi ak bis bi lan la laajoon ba ngeen bëre combat bi ñu taxawal ko mu yàqu ñun leen jodi bi ñu nee jodi bi la saxel dem. waaw sant yàlla rek waaw sant yàlla xam nañu bu lu mooy luy am mais bu la ko yàlla bëggee woon maa ngi yàlla bu baax mais teewul da ngeen a taaral stade bi mille cent pour cent bi yëpp génn waaw ñëpp ngi suñu ginnaaw ñëpp ñëw dooleel ñu am nañu seen fay di ñaanal bébé sama grand dimanche ko yàlla may ndam bu mel ni plateau booy caar Colobane day waaj maa ngi koy yàlla ko yàlla allah Sénégal ay jàmbaar lañu ñuy œuvre ci làmb aussi nekk ay jàmbaar nekk ay liggéeykat donc man c'est la première fois daanaka mooy ñëw ci làmb ma ñëw fii nag fekk fi suma ay xarit ñoo xam ne dañu dëkkandoo parcelle màggandoo yarandoo muy Mansour mi nga xam ne moo euh, def euh, combat bi yàlla dogal aussi euh, programme xëy ndaw ñi nekk partenaire am donc tey ñu ne dañ fiy ñëw pour jaajëfal ko ci journée bi mais aussi jaajëfal xale yi nga xam ne ñoom ñoo ci impliqué wu ñaan leen yàlla yàlla may leen ndam. amiin sa digganteeg ndaw ñi lan la Pape Malick. waaw non xam nga rek en tant que ministre de la jeunesse dëkk ci dëkk bi yaru ci dëkk bi màgg ci dëkk bi. aw ma benn complexe bu discuter ak ñoom man xaw ma jeune bu nekk ci arène ak jeune bu am bac plus euh, huit wala neuf man noonu ñëpp laa yemale. donc c'est des jeunes ñoom ñëpp ci Sénégal la ñu bokk donc defuma xaaji ak seen ku ci nekk rek ci loo xewle dama am obligation ak devoir ñëw fekk si li nga xam ne moom nga nekk moom nga gëm jàppale la jaajëfal la yaakaar naa euh, yàgg naa am diggante ak ñoom coow lu bëri amoon na si. waaw mais yaakaar naa léegi coow li jeex na. ba nga ñëwee la gis nañ ba nga ñëwee def nga changement ci liggéeyu bi le président Macky Sall jox def nga ci changement lu bari parce que ndaw ñu bari ñoo ngay liggéey. waaw damay apporter sama contribution rek am na ñeneen ñoo xam ne am lu ñu defoon man ma lu ma def su ma fi jógee aussi keneen dina ñëw def leneen loo xam ne sax du ñàkk mun na gën li ma def mais vraiment ñu ñëpp on est ensemble on est des donc suñu gisee daal kuy liggéey ku mel ni muy liggéey dañu war a ñëw jaajëfal ko wala ko ne on est moo tax euh, ñu liggéey ba ngoon ñëw fekk ko si bésam bii et je pense que tey wane na que ne euh, war nañu innover ci wàllu làmb tey lii semi nocturne la xale yi vraiment amul coow amul dara maa ngi jaar ci yoon bi gisuma fi benn bagarre gisuma benn problème loolu aussi yaakaar naa war na ñu permettre ñu mën a inspiré pour mën a def ay yu mel nii ci yeneen zone yi nga xam yeneen journée yi nga xam ne ñoo war a ñëw. jërëjëf jaajëf Papa Seck jërëjëf Sidi waa kër Papa Seck ñoo leen di ndax sa liggéey ci réew mi. Mbaye Tine. bëri na fépp ne xam na ne Mbaye Tine adversaire bu naqaree daan la. man la te yàgg naa bëre. arbitre bi sifflé na mbokk yi. baa ngi noonu ci digg géew bi. diggante Talfa Mbaye Tine. Fallou Talfa moo ñu wan moo wan ginnaaw. Talfa moo ñu wan ginnaaw Mbaye Tine la ñu jàkkaar lool. Talfa écrit doo dooraat Talfa door la. dugg na ci gàttam door door mbayte lu ngi door dafa ngi door dooral ma door ñemente fallu ndax door bu daan door mu daan dina fi am de dafa jël na ko dafa jël na ko luy xew luy xew dafa daan wala dafa jël na ko luy xew jàpp na ko eh jàpp na mbayte te mbayte war mbayte dafa la ilaha illallah oh mbayte la mën a bëre fallu xale yaa ngi bëre fallu dafa xeex dooral ma door fallu dooral ma door fallu talfa bu deful ndànk dina am mbetteel ci mbayte talfa na def ndànk na ko jox cër Mbaye Tine Talfa ngi door na ko jox cër Talfa ngi door ñu ngi jàppante ndeysaanam Fallou Talfa Mbaye Tine téere yaa ngay dagg oxo Talfa Mbaye Tine waay bi la combat combat Talfa daan na ko daan na ko jël bi lay doon xoolal ma mbooloo mi Cheikh xoolal mbooloo Cheikh jëlal mbooloo Talfa ngi noonu xale baa ngi xale baa ngi nii Talfa daan na xale bi du nit Talfa mi Talfa mi Talfa mi ku mu jëm Talfa mi. dina jeexal xale yi. Talfa mi. na Cheikh jël mbooloo mi ci ginnaaw. Cheikh jëlal mbooloo mi. Eh, waaye Talfa. la ilaha illallah. waaye Talfa. la ilaha illallah. waaye eh, Talfa def na mbir rek. Talfa mi. la ilaha illallah. waaye eh, Talfa def na mbir rek. Talfa mi. la ilaha illallah. na. waaye mboor mboor bi daan mbir suñu borom rek la. lamb noonu la da daan tey su ëllëg nga daanu. di féliciter. xale bi ñuy wax Talfa mais di encouragé Mbaye Tine c'est un grand champion parce que tal avance am dugg na fu dee génnaat. billaay wallaay. waral parce que ay yi ñemewuñ huit mbër la jàmbaar dox kuñ jox avance Talfa bu subaa nga delloo ko. moom jël. Cheikh dafa blessé moom. wan nañu vidéo yi dañ ko opéré ma ko yàlla mu wér mais di la wax ni daal bu guddee fan lamb bàyyi na ko xel waaw moom kuy képp kuy moromam rek bu ñëwee mu bëreeg moom bàyyiwu fi kenn déedéet ñëpp lay bëreel. dul waa doo dooraat ak jàmbaar day bëreeg yow. di jeex ma ne làmb nañu jàppale Mansour ndax Mansour li muy def ci làmb amul kenn ku koy def ci lamb man maa ko wax ndax lii dafa ñaaw. mais Fallou làmp yi est-ce warul men loo xam ne tey jii nii buñ ko taalee làmp yi bañ a fay parce que boo xoolee làmp bi groupe bi groupe rek moo ko mën a attan làmp bi tàkk baaful di tàkk mais bu baaful di dee tàkk baaful stade bi dee tàkk làmp yi di tàkk day fay. CNG CNG ñoo war a am nañ groupe groupe bi nañ ko taal. wala ñu groupe bu mu def ci gasoil daa bari. waaw mais nañ ko jënd ana liñ leen fay ana liñ leen di fay lii dafa ñaaw. ñaaw na lii dafa ñaaw. pourtant keroog arène nationale li am fii dafa ñaaw. lii danger la wóorul. teewaayu ministre de la jeunesse. lii wóorul la lii ñaaw na. lii la sax fa te lii danger la. wóor ci làmb coow làmb di xas làmb làmb mel lii am na ñu koy seetaan en direct lii du yoon. lu ne mën na fee xaw risque la. risque la ku nekk na nga fa nga toog na nga fa toog mais lii lu ñaaw la. boo fa jógee lu la dal yaa ko sa bopp. man de fi ma toog maa ngi fi toog. ma ni de maa ngi toog. loo ñoo ngi nuyu Papa Gueye. Ndeysaan Fallou daf mel ni baat bi daa dee. monsieur le maire Pape Gueye ñoo ngi koy nuyu. Ndeysaan kenn du moom Pape Gueye. monsieur le maire Pape di def lu baax ci xale yi. yàlla jàmmam yàgg Pape Gueye. wax dëgg yàlla bëgg jàmm gën si Kambaaw. borom Fass Mbaaw a ngi noonu. borom Fass Mbaaw bëgg jàmm gën si Kambaaw. moomu nday Mamor. oh. oh, oh, oh. kenn du monsieur le maire Pape Gueye. ndeysaan waaye xale yi ñoom ñaar fàllu. ñoom ñaar lang la ñuy bëree waaye monsieur le kenn du moom ci biir réew. social ci lay dox. waa Leral TV ñu ngi lay nuyu. waa Leral TV ñoo ngi lay nuyu. ndeysaanam. cey Pape Gueye. kenn du moom. nit social. waaye sama safar gi la 27 la Pape Gueye. Pape Gueye dina ci ñëw. incha allah. nit ko baax la. ndeysaan waaye xale yaa ngi ci kanam tuuti. naar sokaas Liss Ndiago. oho ñooy dugg ci géew bi. mais dégg naa teraanga bu bari la defal Liss Ndiago moom Pape Gueye. Pape Gueye loolu la def. ndeysaanam. loolu lañ bëgg ci Pape Gueye te loolu lay def. waaye Fallou xale yaa ci digg géew ba tey. alors. oho. xale ci digg géew bi. mbaytin mbaytin combat fi jaar yëpp daa neex mbaytin bëreel. sa turandoo léegi daa bëre bëre bu neex ñu daan ko. dafa bëre bëre bu rëy ñu daan ko jëli bu rëy. te wul moom turandoo. déedéet déedéet xalabu ko ndax daa ndax dafa bëre bëre bu rëy. te mag la te bu ko neexoon mu taxaw. dëgg la moom muy xale di moroomam du bëre. Tony Junior. jël na ko Tony dem na. jël na ko Tony ak Mbaytin luy xew jël na ko. Tony jàpp na ko. jël na ko Mbaytin. jël na ko Tony ak Mbaytin. imposé na ko doole. waaye Mbaytin na ngi taxaw rek. Tony songale na ko luy xew eh, eh, Tony Mbaytin da koo bëgg a songale. Mbaye Tine tooni tooni ngay atal daan na ko jël bot na ko. jël na ko moo ko mën moo ko mën moo ko mën moom Tony Junior moo ko mën champion d'Afrique moo ko mën borom médaille moo moo ko mën onze victoire moo ko mën Fallou onzième combat moo ko mën Fallou onzième ku koy kenn fii mu jeexal moromam yi di dina leen ray di waa Fallou dina leen ray kii mu ngi leen di jeexal di. day rey ay moromam. Fall onzième combat. onze victoire. Fall surtout Abdourahmane Ndiaye falang la. ma la. da dafa doon nu bëri ci maamam. Fall Abdourahmane Ndiaye falang. eh dafa doon nu bëri maamam. Fall Tony Junior a ngi nii. Eh, champion la barki Serigne Ba kii mbër pire la. mais Tony li tax bu taxawul. mais lamb la. mbër la li des ci ay combat. Yaago Fallou arbitre bi sifflé na. arbitre diggante Naaru Sogas ak Liss Ndiago. tuwaar muy Liss Ndiago. Liss Ndiago ci Ardo la jógee Naaru Sogas ci Baba Jaxal. ci Baba Jaxal la jógee. di doomu nday Liss Ndiago. combat bi revanche la si Liss Ndiago. revanche la. mais doomu na ànd moom. mais Liss na tey xam ki muy bëreel. parce que Naaru bëre naa ku ne naa Siteu ku ne bëre naa moom moom Naar Sogas. na tey liir combat bi xam na ki muy bëreel champion ndaa ndaanaan la moom Naar Sogas. waaw. waaye xale yaa ngi doon di leetoo Fallou Baye Mbène diggante Liss Ndiago ak Naar Sogas ñaari xale yaa ngi leetoo Naar Sogas Liss Ndiago. Naar Sogas Liss Ndiago. ndeysaan ba tey leetoo ba dig na dara xewagul. dara trophée. trophée Moussa Dioum ndeysaan Moussa Dioum ndam si yàlla si yàlla ko yàlla xaar àjjana fi daw si amiin waaye ndaanaan la woon champion la woon lii mooy wane ne Mansour mu ngi lii mooy ma lii mooy wane ne Mansour mu ngi indiwaat làmb lii mooy wane ne Mansour nañu ko ñaanal góor droite yaakaar ne seen ko dóor dañuy raak dañuy raak dañuy raak waaw lii mooy bëre bi ndeysaanam lii mooy ubbi bëre booy bi maa ngi nuyu waa jàmbur xool leen oh! hey naar sokaas luy eh, jaago. door bu daanu. la ilaha illallah oh. door na ko mu daanu. door na ko mu daanu xoolal ma mbooloo na ko. Eh. xale bi def na affaire. waaye la. la ilaha may leen ma. lu xew. may leen ko. lu xew. may leen ko. bàyyi leen ko. géwal leen ko. géwal ba ci biir. Eh. ma. lu xew. may

man dañ may jàngale di ma wax may def quoi waaw dama la bëgg a xamal na ma ak lu làmb jàppale buñ ma jàppale buñ ma jàppale dinaa nekk champion waaye bu ma waa jàmm gën jàppalewul garaawul mun naa toog gaan man mbër naa dañ ma jàppale dëg ci leen ñëw ñun famille lañ ñun ndawuñu bari lañ fàllu mais dama seetlu ci lenn ci yéen mujjee xeex. waaw nga def dominer sa adversaire. waaw kii tey dafa xeex dóor mu daanu lan moo xew. barki ba ñu di bàyyi suñ ndax ñun dañoo soxla. ni yaay lu neex suñ ginnaaw dafa bëri. lu ñu yaakaar daa bëri ay góor yàlla rek la ñu yaakaar ay mag. dañoo bari mag yu góor. te maag lii sa fa gën a doon xale si kër gi mais lépp a ngi suñu loxo. ñun ñoo yor suñu avenir kër. barki leeru alxuraan suñu avenir mi ngi suñu loxo maag lii barki leeru alxuraan te am nañ ay mag yu bëri mais suñu avenir mi ngi suñu loxo buñ ko sàgganee rek dañuy waay di ba ñu suudee buntu kër gi yàggul ba tey amuñu robinet te barki allah ji fàllu làmb dañuy fay barki leeru alxuraan dañoo sonn saa dañoo dund lu métti am mbokk yu am xaalis ay doomu suñuy papa ñëpp dañoo yor xaalis barki leeru alxuraan ñu bokkoo sama papa ndey baay lépp lañ yor. mais dafa mel ne da ngaa gis ne da nga dañoo mel ne dañoo gis ne dañ leen a demal suñ bopp. xanaa dañ leen a jàppale. te yàlla xam na ne bu yoon jeexul wax suñ du geex ñun ragaluñ fuñ jëm ay zooxale ñun dañoo judd si beñkat ndax ñun suñ papa daa doo beñ. musuma woo naan ma xaaral ma woo sa maam wala sa mag wala sa dara bu ma may xaalis ma yokk dépense daxay jaayante mais ñun exemple ay góor yu dëgër lañ dañoo war a am te barki leeru alxuraan bee deux ans boo ñëwee gàlle mu changé barki leeru alxuraan barki alaaji fàllu soga sida moom la ma yàlla yónni woon pour ma jox ko liis ah bon jaana moo loolu dafa jaaxal tey tarki ndaay ko waaw ah, mais njaago bi dafa bokk si gétt bi te dafa war a naan si soow mi naan nga tey naan dina naan naanaat. na la ko fasal rek ñaanal ko moom tam mu yokku jom yokku góorgóorlu rek. xam ne waaxu sit bu jeexul dara du jeex. affaire yi moom gaan mooy loolu tey neex na trop mais suba na xëy dem liggéeyuwaat. parce que li gars yi soxla si moom. moom lépp a ngi si moom. kon na xam ni maanaam tey jii nii jàmm nañ ko soxla produit la. arbitre baa ngay soufflé. combat bu neex bu ngi nii. diggante Dame Sène ak Modou Dia. di ñaari ndaanan fa. oh ñaari xale non kenn du ñaari xale. ba pare dañoo bokk gox kii Yoff la dëkk kii Parcelles. kii Parcelles. te Yoff ak Parcelles benn la Fallou. benn la kenn benn bopp la. Fallou Dame moom moo ñu woon moo jëmoo xees moom la ñuy jàkkaar lool. ndeysaan cey ñaari xale yi. ñu ngi ci digg géew bi. diggante Dame Sène Dame Sène. Dame Sène si la jógee tonnerre la fi daan bu Ndakaaru. jël bu rëy. ndeysaan moo jël si défaite la jógee caat moo ko daan. moo dox bu ñëwee foog mu taxaw dëggal boppam. diggante Dame Sène la ak Modou Dia ñaari xale yaa ngi lewtoo gaw ma lamb ji yàgg de Dame Sène Modou Dia bi suuf la waat na ndeysaan Modou dem na ci ardo ba ñëwaat eh delloo waat na luy xew songoo nañ tam seet jël na ko Modou jël na ko plaqué na ko daan na ko lay laaxee la laa Modou daan na ko daan na ko na tam seen waaw waaw Modou lan la def fii eh nax da nax tam bala ndeysaan tam na lu ko oho ma ngay daw Dame Sène a ngay daw Cheikh jëlal ma Dame ma ngay daw fu mu jëm moom Dame noonu grand ngi noonu waaye papa yi di ñëw ci làmb suñuy maam yi di ñëw ci làmb wallaay nañu rafetal état na jàppale làmb état na jàppale làmb waaye état na jàppale Mansour Ba Mansour ko puusaat ko ndeysaan Mansour ne xaar ma libéré xale yi ñu bëre ndax am na leneen lu leen xaar oho xale yaa ngi noonu ndeysaanam ambulance bu Thiès Garga 2 Parcelles dóor dóoraat lewtoo na ñoom ñaar ba tey songo amagul dara xewagul ñoom ñaar ñi dañoo nar xeex dañuy raak foog ñu xeex. dañoo ñeme teg si te ay bërekat lañ fàllu. mais la Diop bu lambaamee xale yaa ngi teg ay xaalis ñii di teg ay 500000. mayaar yi la ñii di teg 1 million. mayaar yi mayaar yi la. yaa ngi ca kaw kawkat yaa ngi ca kaw. cey lamb cey lamb kawkat yi. ku nekk ciy bénéfice. ku nekk ciy lekk. voilà. Mansour. jàppale leen Mansour mii. sunu cosaan la. Mansour xeebul journaliste yi. ndeysaan Fallou waxal ku ñëw mu jox la accréditation. te du la tëj ci ay case. oho oh, fàllu ba tey xale yaa ngi ci digg géew bi ba tey dara xewagul dañuy lew too rek. combat baa ngi noonu dox ci diggante ambulance bu Thiès ak Garga 2 ndeysaanam arbitre woo na leen mais la jóg ambulance bu gees gis nga biir bi nu mu woowee. non aldet la. Cheikh Cheikh jël ma ambulance bu baax xool ko. atlet la Fallou bind bi mu yor xool ko. atlet la. Garga 2 day teey parce que dañoo daan daam seen léegi foog mu teey. waaw parcelle daan ardo. Talfa ñëw daan. Talfa champion baa ngi noonu. waaye ambulance sànni na ku léegi mais dalul Fallou. mais la. daa cokkaas rek mais Garga ngi ni tekk di ko xaar. garga 2 ndeysaan maa ngi nuyu garga mboose mu mag ma di rako zos mais garga kabar na uti ko de ndax day songu garga kabar na uti ko day dem ambulance garga 2 buñ jàppantee laa bu ñu jeex de jàppante luy xew añ na ko ci kaw takk na ko doog na ko tànk xatar luy xew hey ambulance garga 2 daan na ambulance lamb ja jeex def na karab doole yamul Fallou doole yamul doole daan na ko doole doole doole doole doole doole Fallou doole jugal demirité woo de doole doole doole ambulance doole